kon na ngeen xamni ne guddi gi gudd guddi ngëneel la guddi gu ñu jaklel la seigne Cheikh Mbacke mi borom fitlu kayo borom jambar ki gëmul seigne touba di mu sadiq bind na lu ne ci guddi tay gi seigne Cheikh lu ne bind na ko ci waye damay faral di wax ne bind na ci ñaari phrase yo xamne phrase yo xamne war nañ ko test ci aduna ba ñepp japp ko seigne Cheikh ku bind te ñu ñepp nañ cee ñëwee ko aduna da wax ne man lam yuhmil xasadu basaruhu wa basiratuhu لا يشك في ان هذا اليوم احق بتعصم من غيره سن شيخ نانكو سن بروم نورو سبت خول با سن خول دو جيس دو سك ساكتي ناي غودي غنال سن توبا تي غودن نانا سن توبا مو واخني غودي غيكو غنال تي غودي ناق دا لا واخني اللهم اجعل خير ايامي يوم الخاك سما بيس بي گنتي سماي بيس نماكو ديفال موي بيس بيغا خامني موم لاي داجاك يو تو فيلي واخ يين تي غودي لا ديك فنانس في توبا كون شيخ مصطفى لام تي واخوني خيل اتونوكو lañ ca mënoon a jàpp mooy wax na ne ku fi fanaan bu la fi jant soo sori bu timis xasee jot rek bàkkaar yi wàcc na fii ñëpp nañu war ne kenn warul bàkkaar Cheikh Moussa ngi toog moo koy seere na ñëpp ra daal di xam ne kenn warutul bàkkaar ndax sëñ Modou Moussa wa maa yantiqu anil hawa du waxantu mukk bu jant bi soo rek bàkkaar yi wàcc na kenn du ko delluwaale loolu tawfiix mënu koo gën a kawe moo tax nañ téyewaat bis bi nañ ko jàppaat tàmbali koo waajaat kon serigne bi dana sam Cheikh Moussa Diop serigne bi sëñ Talla sëriñ bi sant na len sant na len bu wor xamna na ne yemale wu leen ko dara man na ma waat fi mu toll nii su depart li léegi wute gerle barke serigne touba fa ngeen defana ni lol man ma len ko waxal man kon nak loolu pass pass bobu mu xam ci yeen ba japp na ngeen ko téyewaat bax kenn ko ne li ngay ñaan ci guddi gii nan ko jiital serigne touba ni bu doonoon lenn nan la ko defal Cheikh Moussa yàgg fi tawér jël ngeen def kenn ku nek na nga raxa sa ndab te taalal te fasal ku la soob aaju yëpp fajib wasalaamaaleykum wa rahmatullah ni ñëpp taale loxo yi waaw. dafa am ku bokk ci mbooloo mi. ñëw léegi bokk ci yéen. da ngeen am mbokkum taalibe muy wax alaaji Bougane Gueye nu mu mel sëñ Mbacke soxna Lo waaye Cheikh Moustapha Bougane ne mi ngi beesal ak njëbbalam mi ngi beesal ak taalibeem ne ragal péete day xañe wërsëg ne loxoom bii sëñ Mbàkke soxla loo tibb teg ci moom nee na yëg na ni jëmmi sëñ Mbàkke ji demul fenn yaay sëñ Mbàkke yaa ko tax a ngi ne waaw tàllal loxom bii lu muy wut ci réew lu muy wut ci boppam lu muy wut ci gëm ci nee tey ci bisub Cheikh Moustapha bii di bisub Sëriñ Tuubaa la koy wut waaye yaay bunt bi ceew la koy jaar Cheikh Moustapha sëñ Mbàkke soxla loo moo ragal yàlla sëñ Mbacke soxna loo mooy jàmbaar gaynde du ju xar li baax di baax baax dem bàyyi fi ku baax moo gën fi bàyyee ku baax loo fi bàyyi du rab du raaf du réer sëñ Mbacke dem na waaye bàyyi na fu baax ku baax ngay jox na la boppam ak mu njabootam na ñëpp toll amiin آمين آمين آمين آمين آمين Mbacké na nga fi yàgg tëwé Mbacké na nga fi yàgg tëwé yàlla na nga fi yàgg tëwé te Mbacké ma am mbégte lool mbégte mi ma am ñaar la ci man yoo xam ne yii maa ngi ñaan ba at mi tukki Cheikh Moustapha météo yi nag ma ñaanal bu mu dëkk mukk ci ndax man day ku nekk xam na sama diggante ak Serigne Mbacké Mouhamed bëggal ma boppam lool dimbali ma lool sagal ma lool Mbacké kon fi moo fi sama directeur indee bugaan yaakaar na bu ngeen ko santee bugaan benn moom war naa sant junni ba mu ànd ak sëñ Mbakke amutu kopp ak kopp amul ba mu ànd ak sëñ Mbakke amul benn journal ci baaxam ci bëgg koo dimbali mu ni doomi xol ak doomi del am na bugaan sama doomi xol mu defar ko tey ba mu yor teraanga ju toll nii tabax ay building sëñ Mbàkke soxna loolu rek moom ku ñëwee dañu laa ji bu mba bu la nee nañ sànnante bu nangu dafay jóge ci xeer boo nangoo mu toj sa bopp ku ku ñu gémbul boo bëree ñu daanal waaye bu gaa nun nag waaye sëriñ bi noo ngi boo nu ñaanalee benn daal ñu la ñaanal junni lu métti dalu sëriñ Mbàkke دايره بي تانت بو ملني امولو سيس تومو نيب يك سوف دا يك سوف دا كان لو سن بام سمان كان بكو شيخ مصطفى من لا فاي دا لا دون نك شيخ مصطفى شيخ مصطفى كو ديلن جاريم تي نيب بران ديلن كو جاريم اني كو توبا خدمو واي تاي غوندي xam nga lu tax muy jawati yar bi teggi ni toogaay yi tarbi noppi